élection conseil bi ñu war bon li ñu waroon def yëpp def nañu ko li ci des rek mooy profité ci dernier jour bi pour tallal loxo ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo war a voté ndax élec électeurs yi ñooy les conseillers. xamee wu ñu électeur bu conseiller bu nekk bii parti wala bële parti parce que defe naa li am solo mooy fexe ba Thiès. am représentation bi moo gën ci représentation te boo xoolee liste yi nga xam ne ñoo fi présenté wu liste bi ñu présenté ñun mooy liste bi nga xam ne ni moo moo gën ci liste yi parce que ñu ko compose ay nit lañu ay góor ak ay jigéen yoo xam ne ni am nañ expérience am nañ expertise euh, euh, euh, Awa Dia mi mi ngi nii sama wet Bàcc Seck mi ngi ci liste bi Racine Mohamar Ba mi ngi ci liste bi eh, ma jigéen mi nekk sama wet ñu ngi ci liste bi donc ay nit lañ yoo xam ne nii yàgg nañu ci décentralisation ñu ci bari am nañ au minimum vingt ans à vingt cinq de décentralisation man mi diriger liste bi depuis quatre vingt seize maa ngi nekk élu local j'ai été maire pendant nekk naa maire euh, fukki at ak ñaar donc euh, pour dire que. am nañu loo xam ne nii war nañ ko mën a apporter pour que ñu gën a jël en compte suñu département suñuy couleur euh, yomb na ràññe mooy euh, kayit gu weex la am li nga xam ne nii mooy bind mu bleu mais surtout leket gi nga xam ne dañ ci def mboq ba mu fees loolu c'est symbolique te am na nit ñi buñ ko gisee. peut-être lu ngeen xaw a ragal contrairement ak Dakar coow li ñu fay dégg foofu. waaw Dakar coow li coow li bari na mais yaakaar naa ne Dakar du Thiès même si gis nañ ne liste si war nañ ko teel a publier te publier wuñ ko mais gis naa ne Thiès ñun ñëpp ay mbokk lañu ay xarit lañu xamante nañu defe naa ne bu ci autorité administrative yi jàppee tuuti rek. defe naa ñun acteurs politiques yi pare nañu pour que élection yi mën a nekk ay élection am ci jàmm lay am parce que finalité bi mooy lan fexe ba Thiès am représentation bu baax ci au conseil bi nga xam ne donc jarul xuloo jarul xeex te yaakaar naa loolu du si am. merci.